fas yéene def. waaw mais on est <laughs> xam lan laay na def ne nekk tuuram c'est son plus strict mais euh, bu kenn ñëw après ne ni non dañ maa def lii dañ maa def nangam jëlee ko prétexte politique am na sañ-sañu def ne nekk tuur comme notre euh, homme politique am na sañ-sañu dem defi li nga xam ne moom mooy liggéeyam mais bu ñu waxee ne la amoo droit bërëb sàngam ba bërëb sàngam ay la yéwén. di ah, euh, am na loo xamee ni bindal sa kii parce que ce sont des hommes politiques mm-hmm. yenn saa yi nag ma wax la ñoom ñëpp a de yenn saa ñu profiter ci benn situation mm-hmm. pour bërëxal dara mm-hmm. ñu ne par exemple amoon droit wu jaar fii ak fii parce que dafa am ay travaux nga ne non non euh, Macky nee na naa naa naa bañ a dem nga jël ko def ko prétexte politique no il faut que euh, ñu comme y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure nañu respecter Sénégalais ñoom ñëpp nag du pouvoir comme de l'opposition xam nga respecter sénégalais yi mooy lan c'est pas parce que yow da ngay def sa nemmeeku tour wala da def sa tournée politique wala da ngay def nangam que man sénégalais bi nga xam ne dama am sañ-sañu dem dox yi samay soxla am sañ-sañu ubbi sama boutique am sañ-sañu teg sama table di jaay ci marché bi nga ne man nag doo ko fi defee. Hmm. wala yow amoo sañ-sañu romb fa may romb. jël ay jaasi wala ay paaka wala ay ay yat di la di la ci dogaale. Hmm. dans la démocratie mais dans le respect des lois et règlements ci ku mën a doon muy politicien beeg muy euh, euh, manifestant bu bokk ci wàllu euh, parti politique c'est leur droit et bon vivement la vive la démocratie loolu et la paix ñu wax ci njiitu réew mi nga xam ni ngir nag wut ku wutu Idrissa Seck